pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. trois ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 et à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu te leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye noo leen ziaraa mboolem kilifa yi diine yi ak kilifa yi seen mbokkum taalibe la Serigne Salihou Gueye li waral kàddu yi nag weesul xew-xew yi nga xam ne am na ci réew mi rawat na ndaw ñi nga xam ni ñu ngi dugg ci gaal yi tàbbi ci géej gi ngir génn réew mi ngir lan faj sox seeni soxla faj soxla seeni njaboot faj soxla seeni waajur te jàpp nañu fii ñu ngi ci réew mi rek duñ ko mën di gën a indi nag jamono ju naqare ji mooy korona bi gis nañ ñu bare bare ci ndaw ñi amatuñ liggéey ba ñu baree bari mënatuñoo fay kër yi nga xam ne luye nañ ko ndax ñu bari ci ndaw ñi fii dañoo luye mënatuñoo jox seeni doom fay ñu jàng mu am na ci ñoo xam ne sax mënatuñoo joxe dépasse néewaana nga génn dox yitte ba ñëw te ndaw dabu la ñaan la lu mu dimbali ko loolu na lay wan jamono ju naqari ndax ndaw yi Sénégal yaafu suñ ñu bëgg liggéey lañ lu nekk dañ koy liggéey ngir teral seen njaboot waaye corona bi tax na ñu baree bari ñàkk seen liggéey lii nag boo amee ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi dañoo war a taxaw loo musta am boo amee ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi war nañoo taxaw nag waxaat ak ndaw ñi teg leen ci programme boo xam dina tax ñu am yaakaar ngir mën a toog ci réew mi waaye doo toog rek di xoole mel ni dara amul ñi gën a tax nag ñuy wax mooy sëñ bas mi nga xam ne sëriñ Mountakha moo ko wax loo sëñ Mountakha ku ne gis na taxawaay bi nga xam ni am na ko bi corona bi amee. li nga xam ne jël na ko jox ko Macky ngir mu dimbandikoo ko moo gën a néew ci lim ci def boo demee Touba ñi nga xam ni ay daara alxuraan lañ fu baree bari dugal na fa loxoom ngir ñu dund jàngat xasire yi noonu la leen joxe dund noonu la ko joxee néew doole yi boo demee ci sancaane noonu la fa séddi lépp dund weesu loolu daal di wax murid yi nañ dimbalante ci suñu biir taxawaay mel noonu ku ko mën a am ci yéeg ni rek ndax nit ñaa ngi xiif nga mën a taxaw taxawaay mel noonu rawat na nag yéeg ni nag say taalib yaa ngi dee ci ndox ngir lan ngir génn réew mi lii moo waral mu wax sëñ Bassirou Abdou Khadre ni ko nga wax ak ndaw ñi ni leen ñu toog ci réew mi lii mooy message bi nga xam ne moom la ko yónnee woon léegi-léegi nag nga dégg ci ku ne daal sëñ Bass ba dégg nga ci ñuy wax naan sëñ Bassirou Abdou Khadre kat daa waroon wax ak Macky Sall ak wax nangam nangam ba tey maa ngi gis benn vidéo boo xam ne am na ko ko dugal maa ngi si commentaire ba commentaire bi am ku naan ko kilifa nii nga doxee lay doxee muy daa waral wax ak Macky Sall ak nangam nangam waaye kooku wax ak Macky foofu la mën a yegg ci moom mënut wax mag mënut a jug fii dem ngir gis Macky Sall déedéet mënut a jël téléphone woo Macky Sall muyu ko déedéet waaye ki nga xam nag bu jëlee téléphone am woo Sall ni ko léeg-léeg lii la sëñ bi bëgg waxam message am jàll na est-ce que jar na muy toog ci télé di ko def. sëñ Mountakha nag ku nekk xam na taxawaay bi mu am ci réew mi rawat na ci ndaw ñi ñooñu nga xam ne faatu nañ ca mbéng ci niñ ko gisee moo ci njëkk jël alalam def ca weesu loolu nag wax loo rakkam yi nga xam ne moo yor kàddoom ngir ndaw ñi toog bay mel ni dootul am wax ji ñu jël ko wilipande ko lu nekk ñu wax ko ci Sëñ bas Sëñ Bass nag yenn jot yi sax da ko amut ndax yitteem weesuut dox soxla Sëñ Muntaxa yitteem weesuut dox soxla murid ñaari ci lay jaabante. li wax naa weesu na porte-parole bu dee porte-parole mooy jàll ay kàddu rek weesu na ko ndax mbooleem naal yoo xam ne Sëñ Muntaxa naal na ko te mu lool ci loxoy Sëñ bas la ko teg moo cay def moo cay dindi moo cay dem moo cay dikk ba sotti. te sottee nag murid yëpp ci bëgg murid yëpp ci sagu kon ku mel noonu murid yëpp ko war a ñàkk te wax ji sax lu ci ñaaw dama ko ciy gisut Sëñ Muntaxa gis na taalibe yi nga xam ni njabootam ñu dugg ci géej gi di faatu tam naqari ko lool mu yónnee Sëñ Bass Abdou Khader ngir mu wax ak ñoom ñu toog ci réew mi te muñ Sëñ Bass doo leen yedd doo leen waar doo leen xupp ngir ñu toog wax ji weesuut lii te man sa gis naa ne message bi jàll na ndax am koo xam ne xam naa ko. tàggoo ne ma ne dafa bëgg dugg ci gaal yi lu ma xam wax naa ko taxul mu nangoo toog daanaa gis ay vidéo yoo xam ne sax ay nit dañuy faatu mu envoyé ko ngir mu tiit toog te du ko taxaw nangoo toog keroog ma gisee vidéo sëñ bas bii bi ma ko envoyé bi ma ko seetaanee dañ bis ni que tey toog na ndax sëñ bi jox ne ndigal loolu nag damaa jàpp képp koo xam ne bëgg nga ndaw yi réew mi war cee sant war cee bit ndax koo xam ne bu waxee ñaata million maanaam ñaata junni nit ñoo la waroon dugg ci gaal yi faatu ci ñooñu te waxi sëñ bi tax nañu toog yebbi Sénégal nag lu ñu bëgg nga dul xam bu sëriñ si waxut fi ne ni bu ñu waxuloon ñu ngi commencé sëriñ si dañoo waroon a wax nangam sangam nit ñaa ngi dee ci géej gi bu wax a wax bu sëriñ si waxee day kilifa amuñ njaboot ñu jël wax ja dajji sànni wax ci lu leen neex yëkk leen ci lu mel ne xamee moom daal da nga dul xamat lu ñu bëgg bokk ku mel ne Sëriñ Bass mii nag sans pas-pas mooy képp koy ab taalibe Sëriñ Tuubaa war nga koo ñàkk man ne li ma xamal mooy yoon wi dong nga yitteem mosuma téye fii kër gi Ndakaaru Euh, keroog ci yéen ba une heure du matin lu teg bi may bi may tàggoo moom maa ngi koy wan coono gu am ci toogaay boobu ba tey mun ma fii may wax yow day bu ma tëddee quatre heures du matin dinaa yeewuwaat nekkaat ci tiisi mi nga xam ni bi may tàggoo moom une heure du matin jot na te quatre heures war naa jot kooku kon loolu mënut a lépp ngir yoon bi waaw jukki ba alxuraan sax lu ci bare bare da koy tari ngir da dul am jotuk sax mën a toog di ko mën a toog di ko jàng ak njabootam lu néew la ñu mën a toog ak moom ngir mën a jëflante moom. yitteem yëpp yoon wi la sëñ bas bu la joxoon tey rendez-vous ni la bis sàngam ñëw fa man nga faa ñëw doog fa fekk ndax boo dikkee bu ko sëñ bi soxlaa amut jeneen yitte ji yittee sëñ bi bu ko yoon wi soxlaa itam amut jeneen yitte dul yitte yoon wi kon ku mel noonu nag li muy def deful ko boppam yoon yëpp la koy defal màggal Tuubaa gi rek taxaw na ci taxawaay boo xam ni képp ku am boo xamoon la ci biir dëgg di ko gën a fonk man moo waxal boppam ni ma li ma doon def lépp sëñ Tuubaa laa tegoon sama karam sëñ Muntaxa bi noppi sant na ko ci lool rafetlu ci taxawaay bi xam bi mu ci doxee ndax nekkul dafa dem ci Macky Sall rek ne ko damaa bëgg màggal gi am wala sëñ bi nee na màggal gi am moo am déedéet ab taxawaay la ci am ba loolu bu doon ab jéng la boobu la dañ ba ñëpp di def seeni xew fi mu ne ñëpp a ngi gàmm ñëpp ngi màggal te taxawaay bu rëy la ci am ñi ci biir xam xam nañ la ci am kon ku mel noonu nag sag la ci yoon wi ku mel noonu élément la ci yoon woo xam ni képp kuy ab murit war nga koo ne taxawaay boobu la am waaw buñ ko dee ba ñàkk ko nag ba bëtt ko dinañ dal ci kilifa yoo xam ne boobaa loxo dina dal gimiñ te jii nag gis naa koo xam ne mi ngi ciy wax koo xam ne ci beneen tarixa la bokk di ci maanaam di ko gën a taawil ak nangam nangam li may wax seen ñàkk maandu gi rek waaye nit boo bokkut ak moom tarixa li war mooy nga maandu ci doxalinam bu dee coow ak commentaire rek ci gàmm gi am na coow lu rëy rëy loo xam ne bu dee koy commentaire mën nga cee commentaire ba ba sa dund jeex ta du jeex ndax coow gënu ko rëy. teewul murid yëpp am seen fulla seen fayda ay vidéo nangam nangam te loolu ku na ko te nga caa jaare wax ko ci waaye duñ ko def ci yi nga xam ne sax vidéo baa ngi ci murid bi suñ Tuubaa nang ci génn nang ci màndu ab taalibe bi day am fulla am na yoo xam sax wuruñu am jotam lii ma déglu dégg nga ko may wax ci yu jëmee noonu te bu dee ma xam nañ la cee ne man caa wax bu baax a baax ba doy waaye duñ ko def yéen nag buñ ne kilifa gi yoonu murid ngay wax yéen bu dee ab internet la yéen a njëkk jënd connexion toog di di seetaan bu dee télé la yéen a njëkk a taal télé toog di seetaan yéen a koy gën a soxla murid sax te dara taxul lu dul gis ay fay ba exploité ko wax ci la ngeen bëgg wax jaaree ci wax ci lu leen neex ci yoonu murid loolu nag koy def di ci wax xam naa ko ba xam na ma am na sama numéro am naa numéro boo waxee junj doy na borom xel maa ngi koy diglu nag daa ju daa tàmbali xam naa fa mu bëgg a jëm waaye foofu la yem ak mboolem keneen ku ci bëgg a wax nag lu ko may nag fa ñuy jaaree ñoom xam nañ ko